Omar Ba laa tudd kuréelu F24 Thiès laa bokk comme ni ko ñëpp xamee rek F24 du ma dellu si si ñan ñoo ko composé ak lan moo ko tax a jóg mais en ñu ngi nii ñu ngi leen di gërëm leen sant euh, di leen vraiment massawu li jot am si réew mi metti na metti waay boo xam ne kenn mënu koo wax parce que gis nga euh, jaaykat yi ambulants yi ñàkk nañu euh, ñii dee nañu ñii leneen am na ndax musiba mi fi ñëw am si réew mi metti ñu trop. vraiment ñu ngi massawu ñëpp di jaale ñëpp parce que situation la boo xam ne metti na méttiwaay boo xam ne suñu mbokk mi ji wax léegi Amadou Ba décrire na si lu bëree bëri ñun jàmm rek ñu tax a jóg defar rek ñu tax a jóg ñu am Sénégal bokk ko am si droit ne nii la ñu gisee nii la ñu bëggee bu ñu sañoon nii lay taxawee. ngeen seetloo si réew mi am na ñoo xam ne kenn daaw leen dégg ñu wax ku mel ne waa Tivaouane yi am na si ñoo xam ne kenn daaw leen dégg ñu wax. te jël nañu seen seen courage à deux mains ku dégg euh, doomu Abdou Aziz Sy nee na ko yow la duma ma samba du ma demba yow la euh, bu ngeen demee déggee imaamu ndar bi nee na ko duma ma samba du ma demba yow la bu ngeen déggee peuple ñëpp nee nañ ko du ma samba yow la li ñuy tax a jóg lan la mooy defar suñu réew am jàmm nii lañu ko bëggee nii lañ ko gisee li ñu am nag te moom ko danañ ko jël jël ko mooy bu ñu waree manifester danañu manifester comme ni ko mbokk mu waxee dañuy def lu dul yégal préfet bi c'est pas la première fois ñaata demande lañ ko def fii mais dañu ne ni ko mbokk mi waxee il n'est plus question ñu koy xaarale bés bu ñu ko tegatee suñu suñu demande dañ koy yëgal def li ñu war a def. mbokk mi ay nit ñu dee ñaata bakkan a dee ñu ne 23 personnes dee nañu massawaloo kenn jaalewoo kenn assisté woo kenn yónnee woo kenn ñu jéem a xam la mais li xew démb Ziguinchor gis ngeen ko nit ñoo xam ne dañ leen a rey ñu leen di suul ñu sànniwaat grenade seen kaw dama ne sa waay yëf yi ëpp na. yëf na doy na waar. saxalu ko woon suukar moom moo amee bind wax jaar fu ne ne bokkatul bokkatul li ñuy tax a jóg nag ñun kuréel bii F24 mooy ku bëgg a bokk di bokk. dañu ne yàlla nañu yàlla defal jàmm si réew mi maintenant rek il n'est plus question ñun du ñu dellu gannaaw pare nañu janoog moom janoog moom te janoog moom moo moo ñu moo tax a jóg jàmm rek lañu bëggoon Macky Sall bokkul te dootul bokk. Euh, tey jii bu ñu jógee fii dañuy dem si kaso bi xam nga loo yóbbu kaso Thiès lu ñu fay yóbbu ñun ñii xam ñaata nit moo fa nekk pour ñu dem nombrel xam ñaata nit lañ fa arrêté démb taxaw nañ fa lu met 30 personnes génn nañ leen fa mais sant ne suffit pas la fa nekk ñun xamuñu nu mu toll. kaso yëpp si Sénégal noonu la mel situation bi métti na méttiwaay boo xam ne vraiment jéngu rek a si des jéngu rek a si des appelé wuñu woowuñu kenn na la kaay rayante mais dañu ne li ñu moom. li moom ñoo ko moom dinañ ko jëli manifestation bi ñu interdire mais fu ñu ko teg ñun citoyen sénégalais lañu c'est c'est pas la première fois ñu def ay manifestation signé ko jox ko ko mu interdire ko tegu ko fenn dañu ne comme ni ma ko wax si njëlbeen bu ñu amatee manifestation dinañ leen jégal bu ñu leen jégalee dinañ ko ñu nangu ko dañ ko def bu ñu ko nangul dañ ko def ndax droit moo ñu ko may vraiment bokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. ce point de presse. vise tout d'abord à faire un, une, rapide, une rapide présentation de la situation politique et de l'interdiction de notre manifestation de cet après-midi par le préfet. Donc, nous allons commencer par présenter nos sincères condoléances aux familles et aux parents de toutes les victimes. Présenter aussi nos sincères condoléances à la nation sénégalaise qui a perdu, qui a été atteinte dans sa chair, qui a été atteinte dans son humanité par une barbarie sans nom, sanguinaire, par une répression aveugle et violente du gouvernement de manifestations politiques. La jeunesse a été la plus grande victime de cette politique. Nous tenons tout d'abord à dénoncer la jeunesse des victimes, ce sont des enfants qui ont perdu la vie, qui, ont, qui avaient tous un avenir tracé pour servir leur pays et qui ont été fauchés, malheureusement, par la répression aveugle. Nous tenons, nous condamnons fermement ce que toutes les organisations de défense des droits de l'homme ont montré dans leur rapport, que ce soit Amnesty International, la Commission africaine des droits de l'homme, l'ONG euh, Human Rights de ces, de ces éléments réunis montre que ce gouvernement est disqualifié, désormais disqualifié, a, a, a perdu toute légitimité aux yeux des Sénégalais. Et nous avons constaté avec effroi, loin de comprendre la gravité de la situation, loin de comprendre les urgences du moment, s'est emmuré dans un silence de mépris et à engagé une logique de confrontation avec l'opposition. Il n'a pas jugé utile d'avoir un mot pour les victimes. Il n'a pas jugé utile de décréter un deuil de quelques jours, un deuil national de quelques jours, pour montrer pour permettre à la population sénégalaise de son deuil, d'avoir du recul sur ce de se parce que ce sont des actes de barbarie et de torture. Perdre 23 citoyens, souvent très jeunes, n'est pas un acte banal pour un État On l'a vu envoyer des communiqués des contritions à beaucoup de pays qui parce qu'il y avait juste quelques décès dans ces Pour, le Sénégal, les Sénégalais qui viennent de perdre la vie, c'est de l'État et de institutions. On n'a vu aucun ministre ou aucun préfet être présent ou aller présenter les condoléances aux familles endeuillées. Nous dénonçons cet état de fait. Nous dénonçons le fait qu'actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a énormément de blessés dans les hôpitaux qui sont sans soins et les populations sont obligées de faire des quêtes pour les soigner alors que le, la situation du moment aurait imposé que le président de la République prenne créer un fonds de, un fonds de soutien pour pouvoir soigner euh, les personnes qui sont encore dans les hôpitaux. Nous avons aussi constaté avec FOA des arrestations massives, arbitraires. Actuellement, des détentions, conditions de détention inhumaines, notamment dans la cave du tribunal de Dakar, où les retours de parquet sont transportés par des Ndiagadiaï, qui sont obligés de dormir dans la cave qui n'est absolument pas prévue pour cela, où les conditions de vie des personnes actuellement en détention frôlent l'inhumanité la plus abjecte. Nous tenons à dénoncer toute cette situation de crise et de conflictualité dans laquelle euh, le président Macky Sall a plongé le pays et ne montre aucun signe d'apaisement, ne montre aucun signe de conciliation eu égard à la gravité de cette situation. À cet égard, nous avons constaté que la marche, le rassemblement qui était prévu par le F24 à Dakar a été interdite. Ici à Thiès, c'est le même tarif qui vient de, notre, de nous être appliqué par le préfet. Donc c'est une sorte de politique systématique d'interdiction euh, des manifestations de l'opposition. Nous tenons ici à Thiès à dire au préfet que le procédé employé est déloyal et illégal. Alors que la demande de marche a été déposée depuis le lundi il attend le jour prévu de la manifestation, à savoir vendredi après-midi à 15h, pour attendre presque à midi 13 pour nous notifier l'interdiction, nous empêchant d'utiliser toute voie de recours au niveau des juridictions pour faire valoir nos droits. Avec le lot de personnes décédées, les troubles occasionnés à l'économie, la situation chaotique dans laquelle se trouve ce, dans laquelle se trouve ce pays, la condamnation unanime de la communauté internationale de, son, de sa gouvernance, des ONG de défense des droits de l'homme, de ses pratiques barbares et ses tortures. Que ce président de la République n'a plus d'issue. Il est dos, dos au et au lieu d'essayer de réfléchir à une situation d'apaisement et de décélération de la crise, au contraire s'engage dans un nouveau bras de fer avec le F-24 par une politique d'interdiction systématique de ses activités. Le F24, au niveau, cellule, euh, au niveau local, ici à Thiès, tient à informer le préfet que le procédé consistant à interdire systématiquement ces manifestations pour des motifs fallacieux, les procédés déloyaux de notification tardive de ces, interdictions. La cellule F24 de Thiès tient à informer le préfet que ce procédé n'aura plus cours à l'avenir. Que désormais, s'il n'y a pas de motif sérieux d'interdiction et de notification nous permettant de recourir aux tribunaux, aux juridictions pour faire valoir nos droits, le F20, cellule F24 de Thiès maintiendra, quoi qu'il advienne, ses activités. L'opposition subit actuellement au Sénégal une politique systématique de répression une politique systématique de violation de ces libertés, droits et libertés élémentaires. Cette situation, à quelques mois de la présidentielle, avec la volonté du président de la République d'imposer par le sang et la violence sa troisième candidature, fait que nous estimons à partir de maintenant que le président de la République a fermé toutes les portes, toutes les portes du dialogue à fermer toutes les portes de l'apaisement et oblige, pour faire valoir nos droits et libertés élémentaires, à la confrontation avec, avec le régime. Ce qui n'est ni souhaitable. Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté, les guides religieux, toutes les associations euh, euh de la société civile à raisonner le président de la République pour que la crise que nous venons de vivre avec son lot de morts, avec l'éducation, le système éducatif qui est à terre, le système bancaire qui, pas, qui, ne, qui ne fonctionne plus, avec l'économie euh, qui, va, qui a perdu des centaines de milliards, avec tous les, toutes les personnes impactées, que ce soit les ouvriers, que ce soit les ambulants, les personnes défavorisées, nous demandons à la société civile à la communauté religieuse de raisonner le président de la République, de lui demander de déclarer officiellement qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, de, lui, de le solliciter pour qu'il engage une période de transition, de transition au cours de laquelle il sera procédé à une réforme de la Constitution pour le respect des droits et libertés des citoyens, pour des garanties, pour l'indépendance de la justice, tout ce qu'il lui reste comme temps aujourd'hui peut être utilisé de façon utile à bâtir, à jeter les bases d'un Sénégal nouveau.